ñaari yenn yitte rek uh-huh. lañ war am uh-huh. muy liggéeyal sëñ uh-huh. ak sant ko te lii ñu koy waxtaane mooy ci sant ko la bokk gis nga doomu aadama ñaar la bëgg ci àdduna muy aajo ju faju bu dee tàbbi àjjana te aajo ju faju sëñ Tuubaa nee na kii may liggéeyal fajal aajoom may ko lim sàkku wax di xawaa ijal la si na daamu fii xidmati wa hablahum maaraamu moom kii koy liggéeyal aajoom faju na faatu moom dégg nga li li mu wax nee na ñi may liggéeyal buñ faatu duñ ta ci jëlagub àjjana hmm. duñ tàbbi ci kat la hmm. ca digg la ñuy tàbbi innal la si saara wal yi xidmati wala mu diyaaru kon gu naa àjjana ko nangam moom kooku moom ba ko rek na wax moom li ni moom sama boppay métti waaye suñ boppay métti moom kenn du kon loolu moo gënoon ci moom hmm. kon liggéeyal sëñ Tuubaa karim ni mu màgge ak ni mu bëri li ci ëpp nett la Moussa defoon la kii defoon la Yuusufa defoon mi ñooñu li nu def ci diine sëñ Tuubaa du seen morom mbokk yi di Daniel gay dem ga daa ya Moussa labal firaw na yoon ya nuu ko labal bañam ya rey noonam ya Seex hmm. Bamba ne moo leen joxoñ bootam yi ay gone hmm. ña yegg ca yàlla bañ leen di tudde ay saalixiina ak ajaba fii abadin li saalixiina nujaba bëggale ko bàyyi mu sax karamaati rijaali mooy mm. sa buubitum néeg barab yan war a màggal fa la say moo tax ku amul doom ji Cheikh ju toll ni Cheikh Mouhamadul Fadal rek leel sëñ Tuubaa du sa morom mm. ku amul taalibe bu mel ni Cheikh Ibrahima ba xam li am julli jàpp dem ca jàkka ja ñëpp moom lañ doon def sëñ bi dafee baloon lépp def lu kenn defut yan ban yenoon xutbu ya ak daal yi te attanuñ ko moo ko faf raw gaay léegi moo ko faf leer na ñëpp moom léegi kon lu tee mu raw gaay nan ko nangu sëñ tubaa du seen mappandoo du seen maas mm-hmm. dégg nga sëñ tubaa du seen maas na ngeen njàng mbindam mi borom arab maas mm-hmm. dégg nga la Baye Moussa ko ma way fi ndaama la gàttoon te gétti waa faas mm-hmm. faas ku fa nekkoon Caama Tijaan Sërif sëñ Tuubaa du moroomam ah ma way fi ma la gàttoon te gétti waa te raw yaarami faasan rijaali muknaas alam tara aynaaya naa na sayqi kamaalan wa jamaalan azali wishqi sëñ a du ñii léegi alquran comme mooy tudd yoon di leen nettali ñooñu sëñ Tuubaa du seen morom ndax bu eh. fekkee ni ndax bu fekkee ni hmm. yonent yàlla Moussa ci ulul azmi la bokk téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni la yàlla sàkk tànn ci ñaar fukki juróom tudd leen ci alquran tànn ci juróom mi ulul azmi hmm. ulul azmi Moussa mi ci ak bokk ak lu dégg nga sëñ Tuubaa nee na maa leen may zambot deuxième position bi mooy Seydina Ibrahima maqaamam sëñ bi ci géejug maa yomb la ko amee keroog la gaal ngay daw ba wàllu tisbaar muy jàpp madam bu sew daal di fay jàpp hmm. taxaw fa kanamam laal ko bamba fasaan jàppam la daal di am xaal ba muy masaa ma dem ba del si laal ko keroog la am maqaama Ibrahima fil baxri maa yomb la jël na moo tax mu tëjoon boppi gars yi mag ñi Sëñ Tuubaa da leen a jaaxal ko daan waxtaane naa ko mu bis da leen a nett ci diir Alaaji Mbàkke rek boo dee di ko ci fekk ku ne naa suñu waa ji ko mu Sëñ Tuubaa ni tëll génn du géej ak genn kàddu mi ñett yoon mm-hmm. nu may woowe nu ngeen may woowe nu ngeen may woowe mm-hmm. ñëpp ni teg li mu doon wax kenn ñu mewu ko mm-hmm. waaw wax ay sama yaqaf ilaahakal axat yaqaf ko min xafika an kulli axat ragal gam ragalan boroomam tax ne kenn ñu mewu moo tax mag ñëpp ni teg mu ni xanaa da ngeen may wax yàlla Mhm. sëñ Mbacke Diouf ne ñoo ko bàkkee da am nañu àgg ci di la wax loolu waaye am nañu la ko dul wax dañ bi ni leen mat naa wax mat ta wax ndax xulu wala axat waaye ñama koy wax man maa leen moom moomu aji bind mhm. zimaamul wara asri ladallahi fi yeddi wa ma rumtuhu min malikin qaada bil an ñama koy wax wahaba allahu tabaraka wa taala kawnu jamil alamina abidan mamlukina lahu wallahu ala man nasilu wakil mhm. yàllaa def ak nos bind ko teg ko ci nos ñëpp seen bakkan ni ma am wa matal te billahi barke Cheikh Amadou Bam te adduna moom foo fi teg sa tànk sëñ tubaa moom moom malaka ji dunya lu mu ruqe ruqe sëñ tubaa ko alaxira mënoo faa am pàkk bu sëñ tubaa moom ndax waxuraa malaka ji dunya waxuraa samadu léegi kon moom boo bañee sëñ bi moom moom fexeel ba bañ a ruuxam hmm. ah waaw bu ne gis waaw ba bul am ruux rek bul dund bul ñëw rek bu fekkee ni adduna itam bëggoo fee ne bambaa ko léegi nag lànk geeg bañ gi yow moom yow la angaas hmm. yàllaa gën ñëpp bind ñëpp hmm. teewul am nañu lànk ni ko bindoon kon loolu dana yaa xam boo lànkee waaye mënoo fexe moom ba sëñ tubaa moomul dégg nga tafsir Mor Gueye wax na ko mm. ab mu xaddam la caraba la dëkk mm. biñ ko nee loo xam ci ma ko ab paraat mm. ah. ko am wax mëtt wax na ko ni ko ndax daa am ñu wax yonent mu ko am na ñu koy wax mu ko ab yonent lu xam maa ko ko njëkk am maa ko ko jox waye ñama koy wax may seenu muhammadu rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam bu ëllëgé buñ ko gisé duñ ma gis ndax kooka zaaka xtafal mustapha xataaka annahuma lawla nubuwati saa saw baadi xad na sa jaa moog rasulullahi daa mel ni benn sër bu ñu rabbi wëñ ñe jaxaso nok rek la demee zaaka xtafal mustapha xataaka annahuma lawla nubuwati sa saw baadi xad na sa koy wax may seenu muhammadu rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam bu ëllëgé buñ ko gisé duñ ma gis motax ñu wax sa jëm si la ni ko seen yaakaar du tass aduna ak alaakara ndax ka ngeen may jëñ bu ëllëgé ko gis du ma gis bu ëllëgé ëllëgee ni ko ma àggalee xista bi rek ni ko am na ñoo xam ne dañu may wax ni mu ni ko dégg na am na ñu may wax naa ma waaw bisimilah mu ni ko am na ñoo xam ne ndax am na am na ñu may wax wàlliyu sëñ bi ni ko sëñ Dàkke Juuf ni ko am na ñu ñu ñàkk kii de ba lay wax wàlliyu mu ni ko wàlliyu moom fa may yend ba réalité du fekk si te sëñ Tuubaa Baye Moussa Ka nee na kenn du ko tëkkalee ko kaw su ku koy tëkkalee ko kaw su yaa réer ay yaa tëbb moo demoo tëbb xut ba kaw su seen leer na place xut ngir sàkk nay xut ñu sàkk kaw su sëriñ bi yow niroowul ak Jeylaani foofu niroo saasali waa Tidaan du fenn bi kun ni da ngaa niroog xas nañu boo xoolee sa kanam barke Cheikh Amadou Bamba di nga xam ne sa dara niroowu jëg sëñ Tuubaa dañoo bëgg dañoo bëgg a ñëwaat ci xaside yi waa kay bismillah murid sëñ Moussa Niang waaw sëñ Moussa wala yaquudu minni illa liman ah, seetu bi izni minni yaquudu li wala yaquudu minni illa liman seetu bi izni minni yaquudu wala yaquudu minni إلا لمن شئت بإذن مني نفعني وبي ينفع الورى وليقاد بالنبي الصورى فزت بكون الله لي وكوني لو به بجاي خير الكون أعين كل مسلم ومسلما وقد كفاني الإله الظلما نفى الكريم ضرري ومرضي